alun alun ajjuma euh, ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre atum 2022 ñu ngi fii ci fi nga xam ni moom moo di gaar bu mag ci liggéey bi nga xam ni Serigne mun Mbacké moom ndigal Serigne Amdi euh, Mbenda Fall moom maam Cheikh Ibrahima moom mi nga xam ni moo di xalifa maam Cheikh Ibrahima ngir mu ñu dindi li nga xam ni moo di marché gaar bu mag ñu toog nag ki nga xam ni moom moo di Serigne Cheikh Fall Thioky euh, di xalifa Serigne Mbacké Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall mu jox Baye Bara kàddoom ngir ñu sànni ay kàddu ci liggéey bi nga xam ni euh, Serigne Mountakha Mbacké kon joxe na ndigal euh, ngir ñu euh, dindi marché gare bu mag alors tey nag bëgg nañu wax dëgg yàlla xam dëgg-dëgg yi liggéey bi naka ngeen ko nar a taxawoo incha allah ndax day noppi tey am fileeki fan lay mën a noppi. jërëjëf sëriñ bi mi ngi sant yàlla bu baax muy sëriñ Cheikh Fall mi moom sëriñ Mbacke Fall ibnu maam Cheikh Rahim mi ngi sant yàlla bu baax bi nga xamante ne bii jot na ndigal. ndigal muy sëñ am di xaddi sëñ am di bi mu jotee ndigal moom it ci sëriñam jox leen ko ci sant yàlla nag bu baax bi nga xamante ne bii ndigal loolu ak seen ci moom muy ndigal lu mu bëggee ndax liggéeyal sëriñ Touba ku la sew woo dugal la ca war nga loo am nga jox ko ko doog a tàmbali liggéey moom lu foofu la nekk liggéeyal sëriñ bi rek ko ko ñor jëfee sëriñ bi rek ko ko ak yëngoom ak dal lépp ndigalul sëriñ bi rek lépp loo xaye lii muy ndigalu sëriñ bi daal bu jógee dana ko jëf na ko sëñ bi bëggee du ne tey la du ne subir du ne tey lay yegg du ne ëllëg lay yegg ndax moom ndigal rek lay wéyee ndax te koo xaye kii daleel fii bàyyeel fii kooku moo ne doon tey lay yem doone suba lay yem ndax daleel fii lañ ko wax rek fu ne ko fii lay yem nag fa lay yem féeg fukki fukki at wala téeméer at fuñ ne ko fii lay yem rek fa lay yem amul fu muy bàyyi amul fu muy dale amul fu yem lu may ci ndigal li rek fas na yéene daal bali ak bépp teel bi boo xaye bi aju na ci kër sëñ Mbàkke ba ñu fee jóge li sëriñ bi bëgg dañu koo def nañ ko bëgg yéen nag ñu ngi leen di sant bu baax ci bi ngeen agsee nii ndax lii nuy yëkkati ngeen mën na koo jotalal bopp waaye man di toll di taalibab sëriñ bi wala nga bokk sëriñ bi lenn wala nga nekk ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall lenn xam ne ndigal jëm na daal nañ ko jëfe rek jëfe nag mooy ndigal nag jëfe ko nag mooy tax nga mën a dem ca kaw ndax boo buñ ne ndigal jógee te jógoo ànd ak ndigal la jëfe ndigal la ndigal li moom dana jóg te buy jóg yow mi jóg jóge ndigal yi ndigal dana la sukkandiku ci kaw moom ndigal jóg yow nga toog suuf kon bu ndigal jógatee nan jóg ànd ak ndigal li balaa ndigal sukkandiku ci suñ kaw sëriñ bi nag mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp ci woote gi nga xamante ne yu woo nañ ko te ñëpp parce que am yéene ngir liggéeyal sëriñ bi ne mi ngi si sant koo xaye kii dégg nga ndigal li te jëf fas yéene liggéeyal sëriñ bi ne ma lay sant mi ngay gërëm seen Cheikh Fall foofu daal la nekk mi ngi leen di gërëm nag yéen ñi nga xamante ne bii yéenay sàq mi sàq mi nag bu jógee ñëw fi ñuy liggéeyal Serigne Touba xamal na sàq mi mooy dundub Touba la tax sàq mi ñu yëkkati ko dañoo nañ koy def mi muy dundub Touba ko nag dundub Touba boobu gannaaw yéen a ñëw nag di yëkkati liggéeyub Serigne Touba bi ngeen bëgg koo wesaare ba ñëpp mën see jëriñu kon jërë ngeen jëfati ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di gërëm bu baax xam naa ne daal lii ngeen def moom lii ab tàmbali ci nun amul nag fu ñuy yem ci liggéey sëñ bi sëñ bi nag mi ngi leen di sant bu baax mi ngi leen gërëm bu baax mi ngi sant mbooloo mi nga xamante ne bi ñëw nañ it yàlla leen saa bi indi si jàmm ak salaam ñu liggéey ko ni ko sëriñ bi bëggee ba am si ngërëmal sëriñ bi loolu lañ si seen tey moom lañ seen tey ëllëg ëllëg yàlla na saa borom jàppali si lépp lu ngeen di sóobu te barke maam Serigne Fall mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp xam naa li ma si war a wax bari na lool waaye nag boo ma jekka jekk na ma bisimilah rek day fatt sama xel maa ngi leen sant di leen gërëm di balu àq ñëpp di balu àq ñëpp yàlla na sa borom dolli dimbale ba liggéey bi yegg ci jàmm ak salaam barke maam Serigne Fall waaw Malick ñi ngi taxaw ak Serigne Amdi Fall moom Serigne Abdourahmane doon sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall tey nag ñoom xam nga ne laaj leen seenub teewaay ci bis bi sax daanaka du doon lu pertinent waaye rek liggéey bi euh, Fall nu ngeen ko taxaw waaw liggéey bi ñu ngi ci ànd ak ci liggéey bi di ko def bëgg fas ko yéene def ni ko sëñ bi Euh, lu mu ñu digal rek ci la ñu nekk ci ñu sant mooy ñu sellalal ko fii euh, ba ni mu ko bëggee euh, ni mu ko bëggee daañu ko ne defee fa suñu yéene it jàll lenn loo xam ne ndigal sa yóbbuwunu fa fi mu nekk gaa yi sant li ñu leen dénk taalibe yi mooy ñu yem fi ndigal di yem ca def ko ni ko sëñ bi diglee ba tax na loolu ci la yi nekk nii ñuy ñaan rek yàlla sunu borom defal ñu ñu eggale ko alhamdulilah rabbil alamin te benn lor bañ cee topp mbooloo mi ndax xam nañ sax bu diggalee Cheikh Ibra euh, na ko bëggee xam ne ne ah, ah, ba mu ko joxoon ne ko a laa ngi ne la am na mu ko bëggee ba na ñu ngi ñaan ci doole Serigne Touba mboolem murit bu fi teew yàlla na la ci yàlla na la ci yàlla dugal ci biir ngërëm loolee euh, defaral sa àdduna ak sa laaxira euh, sant bu baax a baax di ñaanal suñu suñu suñu Mountakha xam ne ku xam na ne dëkk bii nga xam ne yàlla sunu borom teg na ko ci loxoom muy Serigne Touba tey ci kaw suuf seetlu dëkk bi ak xam dëkk bi ak ak xool fu dëkk bi moo waral mu xam mu xam mu xam fii li fi ne ba tax mu yebal njabootu Cheikh Fall gi neen ngeen defal ko ndax xam na ne njabootu Cheikh Fall gi moom lu mu doon leen wax ak ni ñu ko bëgg rek ñun daañu ko defal nag bu ñu sëñ bi noonu ay bopp la soxla su su ko ko jëkk dajal rek bopp ma fay jëkk yem bu nee lii la soxla loolaay am ba tax na gaa yi moom ànd nañ ca xel mu dal baax liñ jot a weesoo yi rafet na liñ déglu jàpp na lépp nekk kon ñu ngi jaajëfal di leen sant baax di gën a doole jaajëfal rek yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ànd yéen ngi média yi it di saytuwaale wàllug liggéey yi ak li xew ci adduna bi rawat na li xew la rawat na li gi yàlla na yàlla defal jàmm seen euh, jëfandikaay yi ba ni ngeen ci yéene lépp yàlla eggale ko barkeb Sëriñ Touba doole maam Serigne Fall ñu ngi leen ko ñaanal bu baax a baax a baax yéen waa Ndindi yi Ndindi ak kii yéen waa Ndindi ak waa Kër Sëriñ Faram Sëriñ Fallilu yàlla na yàlla defal jàmm barke Cheikh barke Sëriñ Fallu jërë ngeen jëf yàgg fi te wér amiin jërëjëf jazaakallahu xayran jërë Cheikh Rafal yaa mat baro